ma liggéey moom liggéey bu rafet ca RTS moom ak kii faatu nekkoon nañ ci autorité président Macky Sall même premier ministre ñu liggéey liggéey bu rafet xam naa seen diggante. monsieur le président Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal ñu ngi lay jox kàddu gi ci cër bi la yàlla jox te ñu nangoon la ko man nag samay sentiment mosuma ko nëpp ndax dëgg rek ci laa fa seeni nekk. cër bi nga yor ñëpp yéene nañ la ko ngir njawarte ngir xarañte ngir jom ngir fit ngay fay waaye Ousmane sama ji jàkkaarloog yow la ma la nawee xam nga ko ma xam ko diine rek a ma jàpp ndax cër bii nga téye nii muy cër premier bi laax mu ko doole ñëwal nga jël kàddu gi nga seede ci turu Bassirou Diomaye Faye mun ta ñàkk nit bu amee cër ci yenn réew yi am na loo xam ne mënuñu koo jàkkaw bañ a wax ndax lu waay am soxla loo yàkkamti yàkkamti falaa kulli àlli lii looy fay la rek monsieur le bismillah bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp kilifa diine kilifa aada ancien premier ministre ministre président de l'assemblée nationale euh, ñi fi teewal nekk ay jëwriñ ci wàllu aada ak ñi nga xam ne ay kii kilifa yu jógee bitim réew la te ñëw ci li ñu bokk tey di euh, rendre un dernier hommage à l'ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne li ñu fi dajale nag moom mooy loo xam ne tubaab di wax lu inéluctable la xanaa kay kañ la rek waaye loo xam ne mënul ñàkk la borom bi nañu iza jaa ajaluhaa laa yastaxiruuna saatan di yastaqdimuun bu waxtu wi jotee du ci yokk waxul simili waxul heure waaye saa la wax muy lu gàtt gàtt ci unité de temps kon lu mu dul ñàkk la bu amee nag lañ koy compenser mooy muñ ak ñaan ndax amul leneen luñ ci mën muñ ñun ñi fi des ak ñaan pour ki fi jóge ma ñëw nag teewal fii son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nga xam ne ñu tombalee di gëstu lu jëm ci premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne daanaka mu ngi ñu fekk ñu nekk en pleine campagne électorale bi ñu njëkkee dégg ay rumeur ci santeem ñoo bokkoon benn oto bu ñu nekk mu ne ma lan lañ ci xam ma ne ko ah man de maa ngi jokkoog frère am sëñ cheikh yor naa numéro mun naa ko laaj ko bi ma kooyee laaj ko mu dalal suñu xel ñu continuer campagne bi ba keroog dernier jour campagne bi ñuy waajal suñu meeting mbuur mu am ay rumeur yu bari yu doon wax du jëm ci moom ci fi ñu nekkoon maag moom mu est ce que dégg rumeur yi ko cheikh bi ma ko wet mu ne ma ah yaram bi xaw na sutante moo tax sax gisu leen ko ñaari fan yi ci campagne bi waaye liñ ciy wax amu ci kon yàgg na yittewoo lu jëm ci premier ministre ba keroog bi yàlla def limi muy defi muy àjjuma bi wees ñoo nekkoon di yeggali attelage gouvernemental bi waroon ko annoncé à 16 heures ci lañ ñu ko mu ne ma ndax li ñu wax dëgg la ma ko xaaral ma wax sëñ Cheikh ba ci laa jot sëñ Cheikh mu confirmer nouvelle bi waaye bi mu ko bi ñu ci la secrétaire général de la présidence jox fay instruction ne ko lépp li ci war na ngeen jël matuwaay ba mu mat sëkk kon président ni li mu ci waroon def te def na ko dama ne nag lu mu waroon def la du faveur ndax jëmm ji fi jóge taxawaay bi mu amoon ci réew mi ak li mu jëriñ ci réew mi le premier ministre Mohamed Dionne aay été un très grand serviteur de ce pays li ci gën a tuuti mooy nekk na premier ministre pendant cinq ans ñëpp xam charge boobu nu mu diisee te mu nekk ko ci anam goo xam ne anam gu rafet la doon nañu premier ministre waaye doonul acteur politique ba ci mujjantal gi li nga xam ne kuy acteur politique te yàlla may la tuuti ci réew mi war ngaa mun am ambition boobu mu bokkon kook ñëpp mooy nek na candidat bokkon ci wa ñi waroon a mën a mi fi ñu toll kon suñu defee li ñu def dañ ko war def ci nekkinum acteur politique tam adversité amoon na ndax bokkuñu woon fu ñu féete waaye mësuma dégg wala ma gis premier ministre bi mu am ci kàddu wala ci jëf loo xam ne luy dépasser la cadre adversité politique wala débat d'idées kon yoon la tey la république rendre ko hommage un dernier hommage yoon la waa république taxaw jaale ko jaale ko soxnaam jaale ko belle famille jaale ko ñi mu bokkal deret ñaanal ko it ndax ñun loolu lañu ñu am dernier acte bi wane yitte bi ci président Bassirou Diomaye amoon mooy man mii démb waroon dem jullee ji Sigicoor waaye président daf ma woolu ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga dem fekk levée du bi parce que bëgg ma fa yebal ay ministre kese dama bëgg yow mi di premier ministre nga dem teewal teewal ma fa parce que premier ministre la kon ñu ngi koy ñaanal moom mi fi jóge yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na yàlla xaare ko àjjana yàlla na yàlla boole ko ci borom këru barzaq yu yaatu yi ubbil ko ay palanteeram mu jàkkaarloo kër àjjanam ñun ñu fi bàyyi it na sarax bi yàgg suñu loxo lool te ñu yeex ko fayantu asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ bi mu ñëw def ñaan rek ñu daal di ko sëriñ bi